parce que Sénégal dañu dañu dañu booy dañ ma commencé yeb. lan lan la def li bëgg nga expliquer waruñu ko comme lan. man man ma dem Dakar. waaw toog si suuf ñuy def li nga xam ne mooy. adaka yow bu ko a yow da ñu naan ñu ah, naan ñu naan ñu naan damaa mer fot man ma dem ni ma xoolee noonu. nan nga ma xoolee yàlla moom nan nga xoolee. lu tax ni xaw a góox sama lex ñu naan. comme nan hmm. da ngaa meroon loo mer. meruma lu may mer. nañu mais loolu ay caaxaan la ndax mer. lan moo waral mel. mais nag c'est normal sax ñu naan damaa bëgg sées toog sées toog si sées nee li ma toogul si sées bi moo tax na naqari boo yëpp di ko jël di ko tiktok mais loolu waruñu ko waruñu ko wax. ma toogoo tooguma ci seen suuf laa toog. mais yow yow sax loolu la nga xamal de. yow ci toog ci suuf la président dafa mer. naan non meroo moom ndax ni ngay ñaanal dox di mer man nii laa mel. déedéet wax dëgg yàlla mel mais da ngay ree des nga ree am na. léeg-léeg ma ree. voilà mais lu saf xorom man du ma def lu jóg rek ma ree. sa ministre de l'intérieur di la xool kay. xoolu ndeysaan ndeysaan. déedéet meruma man bu ma meroon damay wax ne mer naa wala déedéet. en kay ah, da ngaa bëggoon a toog siis. daa bëggoon toog siis. bañu bëggum boobu kii mais. <laughs> dem xadara di toog ci ay seen d'accord ci kaw laa munoo toog si kii parce que xadara la. Uh-huh. xadara bi man laa xamutoon waxtu bi man. man man man sax sa éducation sax moom dafa dépassé loolu. en Sall Ngaari yow sa éducation dafa dafa dépassé foofu. yow sa éducation dafa dépassé foofu. dépassé naa dépassé toog ci ay yàlla ak toog ci naa toog ci ses. Mhm, alors mhm. ñu naan man et puis li ma ci gën a jaaxal naan eh, xool ko ni mere mais am boo yoo xam dañoo jël photo bi taw sama lex yi. Mhm. gën koo mel comme si. dañ ko gën a mer. xoolal xoolal. Eh, maanaam. bii la du bii de bii du la mer. non mer boobu. mer boobu bi. non wax ne damaa meroon. waaw fee fee la ñu ah, fii meroo sax da ngaa yor sa kurus. toog. ñu naan sës bala la ñuy wax ne ci laa bëggoon a toog. ban la boobu marron bi. nooy na nag waaye bëgguma ci woon. non non bii meroo moom wax dëgg yàlla. sànni sës bi nooy na de. ah bii meroo moom wax dëgg yàlla. li du mer de ni ma toogee nii seen ah, ni ma toogee nii ni ma lemee sama tànk day nagam après. mais nagam bi amul problème. bu may jóg sama tànk bi day nagam. mais booy nee na xanaa doo sportif booy nee mënoo salaatul faatiha quoi. salaatul sol comme. waaw moo wax dañuy wax salaatul faatiha ku nekk ak ni nga koy waxee da nga am. fa mos ma am sama mos ma may ma salaatul alal faatiha ku nekk ak sa salaatul faatiha dafa am sa bos am bosu kii ak. yow ban sa bos bokkut ak bosu kii. wax ko làkk bu sa bos boo ko teg bosu kii. yow ban ngay def ku nekk ak sa bos man bosu président la yor. ban la ci wax mooy kii salaatul al. al fatiha. loolu kay am na solo. soxna laaj ma. que damaa jom da ngaa jeexal question nii. pare ah, mais nag wax dëgg yàlla wax duma wax duma woon question yooyu nag loolu dépassé naa loolu man li ma jaaxal nit ñaan ñi euh, ngi lay ñu ngi lay naan da nga mer da nga lii da loolu boo yaa ngi koy def mais li ma jaaxal mooy sëriñ bi ci boppam daa am ay kàddu yu rafet yoo xam ne ko yëkkati teg ko sagar bi loolu bi nga ko yëgee loolu def waaw loolu mooy mbégte ak kontaan voilà kon mer bi mer bi la ay minutes yu bari lan moo indi lan moo indi koo dem ci réew mi yaa ko tippoo duñ ko tippoo nag loolu moom day jeex ci ñun réew wala danoo jógee danoo ñëw fu bees loo bees dina accu di bees say am na am na ay question ah, déedéet xoolal wuy ma ah. dama lay wax ni la ah dépassé nga woon question ana kay bi léegi kay dootuma yorati kay laajal euh, di laajal du ma a laaj pare naa ci yow laaj ah, euh, Omar Omar dafa am loo koy laaj

ay xarit ay romar ak nàppati. bu ko liggéey jug sama yoon dara ci man nag sàqi sàkk bi amul problème mais. Euh, euh, ah? yaa ngi doog a toog ngi wax. Euh, déedéet mais président bi nga demee fi nga xam ne rek moom moo di Sédhiou mbooloo mi la topp. ànd ak <laughs> Souka Keita waa kii day liggéey ba liggéey. mais <laughs> <laughs> sa sa Ndiogou Souka bàyyi nga <laughs> bàyyi nga ko si sagoon de. Eh. vraiment vraiment kenn. Souka amul woon kër. xam nga mënoon ngaa toog na temps yëpp dama koo bàyyi ci liberté muy kii mu defe ne professionnellement la ngand ngandulu di jéem teg boppam foo xam ni waay. waa ah, grave deux minutes moo <laughs> nag saa da nga war di sanctionné de. Ah, sukaam yi bàyyi nga sagoom de kii dafa jar a abandonné plateau bi nii. suka abandon amul fii. ah baax na na ñëw eggali. suka ñëwal ñëwal liggéey. ah na ñëw eggali de. dese na ko deux minutes <laughs> ñun sawa ñun sawa sa rubrique la. <laughs> man damaa voyagé woon damaa sonn tey baal baal ma bës. même ñun mënuñu toog une nangam. ci plateau bi di wax. su kaa am cinq minutes ñu du ko eggali. ak am fulla moom saa la da ngay lijjanti da koy lijjanti wala plateau bii kenn dootu sérieux voilà mu jeex